waaw sant yàlla rek ak kontaan euh, parce que am naa fi euh, absenté naa fi benn deux ou trois ans et voilà dama si sant yàlla bu baax di sant aussi euh, coach bi confiance bi ma jox ma ñëwaat nekkaat si tanière bi. waaw léegi euh, intégration euh, bi est-ce que yomboon na maanaam ah, nekkoon fi jóge fi ñëw saafaloo rek nekkaat ci groupe bi est yomboon na. waaw bien sûr dafa yomb parce que fii ay frères ñoo fi nekk yoo xamante ne xam naa leen depuis ak ay ay ak ay xarit euh, te aussi équipe bi équipe bi famille la donc dafay yomb ko pour man waaye. léegi yéen a ngi waajal benn marche yéen ak Eswatini. ban xeetu mm, jongante nga yaakaar lay am est que dina yomb ci yéen. waaye pour man jongante bi darul yomb parce que équipe la boo xamante ne ni mooy dernier ci poule bi donc dafay ñëw pour moom pour pour pour pour sauver l'honneur pour man donc genre match yooyu day nekk match yu metti mais aussi nous c'est le Sénégal waaye c'est Sénégal donc ñun dañuy ñëw indi lu ñu xamante ne moom la ñu xamee moom mooy def fulla fayda def jom. waaw mu yële maillot si terrain bi pour def am ndam pour terminer en beauté. daal ndam rek ngeen di wax waaye waaye tout le groupe loolu la ñuy wax ndam rek la ñuy gis demee incha allah.